الختم سبحان ذي البقاء والمخالفة من قال لي أمنا بلا مخالفة ملك الذي القيام بالنفس وجب لو ci ba tey gëstu bi nga xam ne ñu ngi koy amal tey fii ci ndar ànd ko itam ak waa kuréel gi nga xam ne ñooy saytu fàttaliku bis bi fi Serigne Touba julli woon ci biro gouverneur ñu ñëw na tey ci barab bu am solo itam boo xamante ne bi yaakaar naa kenn mënta nettali taarixu sëriñ bi fii ci ndar te tuddoo ko. waaw ah, jërëjëf Serigne Mor fii moom it euh, bokk na ci béréb yi ñu koy wax toolu buur nga xam ne fi lañ boole woon ak sëriñ bi. ak gaynde gi nga xam ne loolu moom day nekk dafa nekk lu wér a wér du du du lu ñuy waxantu yooyu nga xam ne foofu euh, booba ñoom ci jamono bu nekk rek ñu ngi pexe lu fi tax sëriñ bi man fee jógee nekkoon seen yitte ndax jëkkeewuñ ko fi jëkk nañu dugal ñett waaye mel na ñooñu gaynde gi fadd sëriñ bi it am na ci mag ñi comme doon waxtaanal bis na ko man day bañ ma fa tàbbalee sax yéex na maa xam ne gaynde nga fa <laughs> ah sëriñ bi nee na naa koo seetlu daal daan na ko ndax béréb boobee de yonent bi keroog dara na ma ci dënnam na ma sama xarit nga waaw ah, nee na loolee nag sedd na sama xol ba ba ma gestoo laa door a xam ne ndeke gaynde gi nga xam ne kon it koo xam ne nii yonent bi sallallahu alayhi mooy seen dimbal mm-hmm. moo lay jàppale moo lay wétali mm-hmm. boo dajee woon a gaynde ca digg mën ni git gaynde ga dana nooy waaw ko nga xam ne kon mm-hmm. loolu day wone wa man takun bi rasulillahi xidmatuhu مصاحب الصدق والإخلاص والحسن فلا يقاف ولا يرجل وراء زمنا إذ الوقاير تغنيه عن الكنان كيف كو خمنا ينتبي صلى الله عليه وسلم رك ني لغيال اي مصاحب الصدق والإخلاص nga and ci akuk deugal akuk selal fala yaqaf bum ragal wala yarju bum yakar bur ragal ay lor bul yaakaar kenn ku dul yàlla ndax nee na yàlla dana la bàyyi ko ci wet gu nekk ñëw gunge la wéttali si la kon béréb bi bokk na ci béréb yooyu nga xam ne ñii ñëw ndar di màggal si war nañ di di ko di ko bu baax di ko gëstu ndax da ngay dégg ñu ne boole woon nañu Sëñ Tuubaa béréb sàngam gaynde waaye fii ñu nekk tey ci toolu buur fii ci ndar boole woon nañ fekk Cheikh Ahmadou Bamba euh, gaynde ngir jublu ci ko lor waaye gis nga la mujj lépp waxal wa sallam senge ko aar ko ci ci fànn yëpp gunge ko wéttali ko yégal ko ne ko sama xarit nga sama soppi nga te